turwaa di Seydi Ali maarif ba Yàlla xamal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te wéer ci ndigalul sëriñ ibrahima ndiaye di xalifa cheikh ibrahima ndiaye gédé ci kiliftéefu sëriñ moodu ndiaye gédé xalifa sëriñ aliou ndiaye gédé cheikhul mourabbi ak mbooleem njabootuk sëriñ aliou ndiaye gédé gépp daayira mafatihul bichri bi lëkkale sëtti sëriñ aliou ndiaye gédé yi ñuy am mbégte di leen yëgal ak a woo ak a fàttali conférence bu mag bi nga xam ni at mu jot ñu koy amal di ci waajal màggalu kazu rajab bi nga xam ni ci la ñuy fàttaliku sëriñ aliou ndiaye gédé cheikhul mourabbi ñu koy bu ñu nee suba la màggalu Kazu Rajab gi ren ji ñu jàpp ko talaata dëppoog le février di ci woo mbooleem jullit yi taalibe yi rawatina daayira sët yi di ci woo daayira Taysiru Ansir bi lëkkale sëti Baay Sëriñ Njaay Gédé yi di ci woo sëti Sëriñ Maram Buso yi mu Sëriñ Masamba Kanni Buso di ci woo sëti Sëriñ Abdul Wudoon Mbàkke yi moom Sëriñ Afiya ak mbooleem sëti Sëriñ Moodu Faati Xari yi moom Sëriñ Masamba Mbàkke daayira ma Faati Onal Bichri ñu ngi woo ci conférence bi mbooleem njabootug Mam Maram Mbàkke gépp ak Mam Xaadi Mor Baasin di yi nga xam ne ñoo Serigne Touba ak mbooleem umma islamique bi bàyyiwuñu kenn ren jii bi ñu ngi ko tuddee Serigne Cheikh Ndiaye bu Kaolack nekkoon mbokk ci Serigne Aliou Ndiaye doo doonoon xaritam di wëlëreem waaye nekkoon jàmbaari Serigne Abdou Khadir Mbacké ci diwaanu Kaolack ak li ko wër ci conférence bi ba léegi ñu ci fàttaliku Serigne Mbousobé Ndiaye ibnu Serigne Ibrahima Ndiaye di ci woo njabootam gi yépp di ci fàttaliku Serigne As Ndiaye ibnu Cheikh Ibrahima Ndiaye di ci fàttaliku ba léegi Serigne Mbacké Ndiaye Guédé ibnu Baye Serigne Ndiaye Guédé di ci woo mbooleem njabootam gi di ci fàttaliku soxna Mbathio Diouf nekkoon ak Serigne Aliou Ndiaye liggéeyal yàlla di ci fàttaliku Serigne Djily Ndiaye mu mag moom Serigne Aliou Ndiaye Guédé ak Soxna Loota Ndiaye bintu Serigne Aliou Ndiaye Guédé programme bi nii la ñu ko tëralee bu ñu xëyee daañu fa amal njàngum alxuraanul karim ak xasida bu ñu demee ba 18 heures di 6 heures ci ngoon ci la ñuy door programme conférence bi di ay waxtaan yu am solo yoo xam ne daañu ko fa amal ci ay thèmes yu am solo ci teewaayu mboolem kilifa yi xarit yi soppe yi ak wëllëre yi conférence bangook di conférence bi nga xam ne at mu jot bi nga xam ne moo lëkkale sëti Serigne Aliou Ndiaye Guédé ñoo koy gi nag conférence bi ñu ngi ko jàpp mardi dëppoo ak le 6 février 2024 ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yow buur fayal nu ko yiw defal ko jàmm mu ju defal nu xéewal ci barkeem may nu lun doylu